أمده شيخ أوراد وآثار ci ndigalu sëriñ si ahmad tidiane ibrahima ñas xalif général de la fayda tijaaniya ca Medina Baye cheikh mouhamadul amin ibrahima ñas le représentant di xalif à dakar mama amidia ak ay doomam ci Baye ñas ñoo am mbégte kontante di leen yëgal waaye di leen woo ci laylatul katmiya bi ñuy amal jagleel ko sunu sang ba sunu sëriñ si ahmad tidiane sërif radiallahu taala anhu ren ñu jàpp ko jeudi 17 octobre 2019 yamook 18 safar fii ci jardin public bu Rufisque jàkkaarloo ak mairie bi bu xëy xëyee 9h dinañ jàng alxuraan ñaanal réew mi yépp 10h ñu def don de sang 19h wasifa julli timis berndeel gan ñi 22h sikkar si tàmbale ñu ànd ci ak Cheikh Baba Gàcc ak groupam 0h jàpp 1 di du matin ñu def publi reportage jagleel ko parrain yi buñ ca noppee jox borom xam-xam bu mag di kaan Cheikh Aboubacar Ba at Tijaani mu waxtaanal ñëw ci suñu sëriñ suñu sang ba Cheikh Ahmad Tijaani Sharif radiyallahu taala anhu waaye ana ñen ñooy parrain wu yi maam Alaaji Abdoulahi taala anhu elaj tafsir madaɗo diatara seeɗo maren ya astu sow yaayu baaya kon sixième édition baa ngi noonu di leelatul katmiya bi mama amidia ak ay doomam ci Baye Niass di amal at bu jot ren ñu jàpp ko jeudi 17 octobre 2019 fii ci jardin public bu Rufisque jàkkaarloo ak mairie bi ngir yeneen leeral defal 77 459 11 77